wax euh, bonsoir ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fii seen xarit seen soppe Ndeye Fatou ñu koy wax Fatima ngeen xamee ko comme si suñu émission mu nekk tey suñu deuxième numéro émission démb ak tey comme ni ñu leen ko waxee woon rek di indi ay thème euh, te thème sociétal ñu koy teg si la table di amal des invités yoo xamante ni dinañ ci mën a waxtaanee euh, ñu mën si poser aussi des question am si ay réponses yu mucc ayib.

et gis nañ transformation bi ndax dañ tollu ci table liggéey tollu ci bëgg liggéey ak tollu ci euh, liggéey ngir téral wajuri donc euh, ñi ngi invité tay ku ñuy wax euh, Cheikh Gueye Lahi di coordonnateur technique du pôle emploi et entrepreneuriat bu Rufisque xana rek dinañ leen bàyyi d'ici quelques minutes mu présenté wu mu wax ñu mooy kan balaa ñuy dugg ci thème bi Cheikh ñu ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay bu baax Ndeye Fatou donc di rafetlu invitation bi leen remercier bu baax a baax di wax ne am nañ mbégte aussi ñoom fii ci Kër Massar Info pour échanger par rapport thématique bi nga xamante ni bu am solo bi ngeen choisir euh, bu nekk également njëriñ si askan bi nekk également njëriñ li nga xamante ni mooy jeunesse Masha'Allah, allah bi solo comme nim ko waxee rek euh, fi ci Kër Info ñu tay amal euh, thème euh, bu am solo thème bi nga dina askan bi te peut-être dinañ ñu génné ay yoon yo qui dinañ xam Cheikh kon la jeunesse moy ndaw face à l'évolution du marché et du travail xana rek ñu commencé who ci thème bi touti ñu laaj la aussi d'abord parce que dafa amoon you demba ak liggéeyu tay euh, tu comprends un peu du coup euh, xam nañ évolution bi xam la transformation mais balaa sax ñuy dugg je dama lay wax njëriñ bi d'abord c'est quoi le travail. Euh, merci beaucoup les Fatou je crois que les questions bi solo trop. parce que tey boo jëlee comme thématique nga ne la jeunesse face à l'évolution du monde du travail première chose bi ñuy def mooy élucidation conceptuelle mm-hmm. maanaam sujet bi lan lan moo nekk ci biir pour jeunes yi nga xam te ne comprendre sa question am na solo parce mm-hmm. que lan mooy liggéey mm-hmm. loolu question la boo xam te ne ñun peut-être ñu ngi liggéey ñu ngi wut liggéey ñu naan man liggéey moo fi manqué liggéey moo fi bëgg mais lan mooy un travail travail li ñu ko définiree mooy une boo xamante ni tey daf lay permettre nga am rémunération nga def activité activité boobu boo ko defee pare mu dikkal la dara mhm. donc loolu mooy liggéey mhm. donc liggéey nag bëri na ay anam yoo xamante ne mën nañ ko euh, kii am na ñoo xam dañuy liggéey pour seen bopp mhm. am na ñoo xam dañuy liggéey pour nit am na ñoo xam dañuy liggéey liggéey boo xamante ni peut-être pour ñëpp la. Mhm. donc loolu mooy nature juridique travail yi nga xam ne mën nañ ko définir. Mhm. beneen chose bi nga xam ne war nañ ko wax mooy la jeunesse. Mhm. parce que boo nee la jeunesse face à l' évolution du marché du travail ñan la ñuy comme jeune. Sénégal souvent da gis nit ko am cinquante ans. taxaw ne la man jeune la alors nan nañ mën a waxee kii jeune la kii du jeune. Euh, Nations Unies aussi dafa devenir des jeunes comme étant benn tranche de 0 à 16 ñu leen di mhm. de 16 à 35 ans ñu leen di donc les jeunes koy dañuy jàpp ne entre 0 et 35 ans kooku mooy jeunesse maintenant am na ñoo xam ne nañ nag jeunesse du ci âge ci état d'esprit la mhm. jeunesse du ci âge si si idée la mhm. ci ci ci taxawaay la loolu mën nañ ko comprendre mais de manière conventionnelle loolu mooy jeune maintenant quand on parle d'évolution du marché du travail loolu je crois que ni day laal ci li nga xamante ne moom nga wax parce que évolution bu ñu ko waxee jóge na fii dem lan moo tax mu joge fii dem fële. Mhm. lan moo tax liggéey ni ñu ko concevoir tey ak liggéey bu jëkkoon ni ñu ko concevoir du benn. Mhm. lan moo tax liggéey na mu am woon bu jëkkoon ak na mu ñàkkee tey jii du benn. lan moo tax suñu maam yi. Mhm. ñoom ni ñu amoon facilité wala ni ñu amoon maanaam yëwén. liggéey ci mbir ba mbir boobu mën leen jural barke. pourquoi ñun jeunes ñu am problème boobu. je crois bu ñu xuusee si biir nañu revenir par rapport à ça incha allah. voilà comme ni nga ko waxee bu ñu xuusee si biir euh, surtout ci gën a euh, yegsi bu baax mm-hmm. mais bu ñu seetloo euh, Cheikh euh, démb mm-hmm. mag ñi gisoon nañ ni seen doom yi dañ daan bay mm-hmm. dañ daan yor ay jur dañ daan di def de telle sorte que ñoom dund gi day fase si ñoom ndax daan nañ dégg sax ni bu weer daan dee wala bu ñu bayee ba ku nekk am dañ ko sax dañ daan def échange biir bu kii amee dugub kii am gerte ñu échange bu kii kaani kii am dara ñu de telle sorte que ñoom dinañ mën a dund léegi noonu ñoom ñoom pour yow ban gis-gis na am si loolu non loolu je me dis que euh, en un moment donné aussi euh, suñu maam yi dañu leen di respecter li nga xam te ne organisation sociale bu parfaite bu ñu amoon. Mm-hmm. bu jëkkoon euh, bo démé ci lebu yi dañu am lu ñu wooyee ay ëtt. Mm-hmm. ëtt moy kër ki day nekk njaañ dañuy nekk ni njóobeen dañuy nekk ni mbengeen dañuy nekk ni ñëpp dajaloo. donc circonscription boobu non li muy permettre tay moy information day am au niveau du foyer mm-hmm. Manam tay njóobeen dañuy xam njaañ la la ñu te pourtant duñ ko xoolante. nit bu ñàkkee dara dinañ ko mëna régler problème bu amé dinañ ko mëna gérer donc day amoon ben forme de communication bo xamante mom mo amone c'était le vivre en société. voilà c'était le vivre en société. d'ailleurs loolu moy waral tay mbirum liggéey dañ ko jappé mbirum ñëpp tay dañ doon jappé travail saisonnier par exemple. Mhm. bay bu joté ñëpp dañuy dem bay ci am ci kër gi ben pack bo xamante fa nañuy bayé lepp lo xamante ni ci mbirum. ci mbirum euh, lu ñu war a dundee fa lañ mm. koy teg xam nga loolu organisation boobu noonu tey c'est extraordinaire liggéey bu jotee que soit mu nekk mag xale ku nekk rek yow xam nga ni yow bay bu jotee lii moo la war ci loolu aussi ci côté am nañu li ñu wooyee enclos tey am nañ benn pàcc boo xamante ne aussi jur bi mm. fa lañ koy yaree ah mm-hmm. nga amaat ci benn côté boo xam ne am marché boo xamante ni comme ni koy def fa lañuy defee trop mm-hmm. loo manqué boo ko yóbboo mën nga ko am en plus aussi euh, quoi qu'on puisse dire lolu dafa leen permettre ba dafa feeñoon seen wergu yaram manam liggéey bi mhm. ak liñ ñu doon dundee dafa feeñ seen wergu yaram ba mhm. ñom dañ leen doon sawar pour liggéey mhm. dañ doon sawar ba paré aussi aussi dafa barkeloon ba paré ci suuf la doon jógee parce que si ci ci ci li nga xamante ne moy animal lolu li doon jógee donc lolu mo facilité woon tey li nga xamante ne moy travail bobu euh, bu yàgg ba lolu aussi li mu doon moy ñom ñoom ñu won lu bari da gis dañ koy faral sax di wax ni da gis benn borom kër boo xam day am ñetti ñeenti jàpp ñeenti soxna te du ko yëg lu tax lu tax du ko yëg mooy maanaam euh, facilité bi nga xam ne moom la ñu war a dundee lépp mhm. nekk na dans leur environnement immédiat mhm. te tey bu ñu defee évolution ñëw loolu noonu tey amoon foofu noonu ak looy am tey di mhm. c'est totalement différent parce que bu fekkoon ñoom tool yomb na leen jamono ñu toll ni espace yombutul. Mhm. bu faites jur yomb la leen jamono ñu toll ni jur boobu noonu yombutul. Mhm. bu que système de communication boobu noonu organisation sociale bi ñu amoon. Mhm. ba njaayeen bi mën a kii ak njóobeen bi mën a ak ñi yombutul tay. je crois que ni donc bu ñuy def analyse ci marché du travail bu jëkkoon suñu je crois que facteurs non, noonu moo leen permettre woon tey. ñoom ñu mën réussir loolu d'accord su la déggee bu baax mais est-ce que aussi euh, d'où perte repère. Mhm. parce que aussi bu bu fekkoon dañ doon sukkandiku boobalee mise à part le partage mhm. mise à part ñu vivre en société di dimbalante xam ne lii ko war a def pour ñu mën a dund avancer mhm. est-ce que repère boobu perdu ñu ko tuuti effectivement loolu aussi euh, pàcc la ci li nga xam te mën nañ koo analyser le marché du travail euh, d'hier d'hier parce que tey boo xoolee euh, ci côté valeur côté repère côté angle bi ñu koy waxee mooy angle comportemental bu jëkkoon aussi li nga xam te ni yëmbaloon na liggéey bi mhm. mooy mag bu daan wax xale da ko daan jëfee mhm. tey boo daan gis benn boroom kër moo daan nekk taxawaay bi amoon na si kër gi sax li ko doon firndal am na néeg boo xam ne néegu borom kër gi la am na bool boo xam ne boolu borom kër gi la am na mm-hmm. pliaan boo xam ne pliaanu borom kër gi la mm-hmm. am na place boo xam ne borom kër gi bu waxee rek ñëpp dañ koy déglu mm-hmm. mais li ñu gis tey jamono ñu tey tey polygamie demet demetul noonu te boroom kër gi bu waxee am na ñu koy déggal am na ñu ko déggal am na ñoo xam dañ naan dafa far fii te déjà loolu mën na nekk mën nga nekk borom kër aussi doo am autorité boobu noonu loolu aussi ci côté Euh, euh, dépravation des des valeurs da mhm. ci feeñ leen li ci feeñ aussi moy mhm. xale yi léegi la mag yi nangu woon xale yi léegi nanguñu ko tay sama mhm. genre gii ni ngay jël nga ne nga ne tool baa tool tool ngi nii ndax dañuy dem béy ñun ñoy jëk bañ donc bañ mi ngay bañ noonu tay amna lu changer li changer si chaque monde draine son propre envers est-ce que du jamono moy dox ba tool foofu effect effectivement lool motax nak tay tey anc suñu anciens yi suñu parents yi suñu maam yi loolu nañu amé sans suñun parce que ñoom gisuñu woon jamono bay dox ñoom li ñu gisoon rek mooy il y a des yoo xam ne moom moo taxaw ñun nii nañ ko mën a régler mhm. ci ci ci dimbalante solidarité ci liggéey travail ci yëwan ci li nga xamante ne mooy engagement personnel mhm. donc ci côté valeur yi man angle boobu noonu laa koy waxee maintenant dina ñëw si tey mhm. tey boo defee étude comparative nga xol démb ko xol tay ñun euh, mhm. suñu problème ñun mo moo euh avantage bu mag yi. ñun suñu problème tay angle yëpp nak yoo ko waxee ñun ñom li nekkon cet avantage. mo na yomb tuuti ñun mo nekk suñu problème ñun rare nga fay gis fam yo xam dañuy bay dañuy am bay dund ba am luñu denc non non mhm. yow déjà bo amé dara wala mu nek salaire mu nek revenu mhm. li problème ba nga taxaw di la xaar te li gëna sofantal peut-être mën na nek sax développement d'un pays ndax bàyyi dafa nek lo xam lu mën a jur xaalis la effectivement donc mhm. agriculture bobu non élevage bobu non partage bobu non commerce bo xamantene parce que commerce aussi euh dañ ko barkel donc dañuy faral di ko dans l'histoire sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax métier commerce la won donc mu nek Euh, activité boo xamante ne actuellement. Mhm. du question dañ koo soofantal de. Mhm. mais dañ ko jàppee benn activité pour les pauvres. dañ ko jàppee kuy jaay rek dañ jàppee ne yow amoo moo tax ngay jaay. loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne tey. Mhm. tax na euh, boo defee étude comparative entre euh, marché du travail hier ak aujourd'hui da nga xam ne changement yu bëri am na ci. ba tey si étude comparative boobu est que aussi du appât d'un facile parce que bu ñu seetloo ndawu tey bëgg nañ am bëgg nañ ku ci mel ni man damay bëgg toog fi ma toog am xaalis bu bëri te duma ko jafee balaa caa ma dem si grand place ba naan ataaya su ma ñëwee bi ñaxtu dëkk bi amul dara est-ce que du appart da ngay fas tayal bi tay bi jeunes yi tayal tay est-ce que du moo leen yóbbee yéen ndax am nañ ouverture yoo Cheikh tay buñ la woon kaay nga dem bay da bañ. Hmm. alors que euh, yaa ngi xeeb liggéey boobu te pour yow liggéey si bureau mooy wax ji. effectivement voilà xam nga xam nga loolu aussi dafa am solo. ci mhm. côté étude comparée ba léegi. Mhm. xam nga tey euh, loolu dama koy jël ci côté éducation. Mhm. parce que tey ñun li ñuy yaree mooy da nga war a dugg CI. da nga war a am entrée en sixième da nga war a am BFM e da nga war a am BAC. boo paree da nga war a université après da nga war a liggéey ci bureau yi. donc loolu mu nekk benn mbir boo xamante ni aussi. je crois que ni euh, c' est c' est maanaam ñu ngi jëlee suñu suñu suñu suñu mooy héritage colonial. maanaam ñun gis-gis bu ñu am mooy même parents yi ah. Mhm. fii ku kuy duggoo sa doom la la lay wax yàlla nga dem ba toog si bureau. Mhm. mais loolu la ñuy wax donc ñun dañoo jàpp ni kon toog si bureau. <laughs> mooy li nga xam te moom moom moo baax. dañu jàpp ne ñun bu ñu toogul si bureau rek donc liggéeyuñu. Mhm. donc loolu aussi c' est c' maanaam c' benn benn kiiw suñu éducation la. parce que tey wax nga ko sànq. tey taamu bi moo bëri. tey da ngay gis benn benn benn jeune tey danga bëgg liggéey tey tekki tey résoudre ses problèmes tey loolu aussi day poser un problème moo tax ci loolu noonu nag li ñu ciy wax mooy côté éducation mm. il faut ñu revoir l' xool ne maanaam ñëpp mënuñu liggéey ci bureau yi mm-hmm. ñëpp mënuñu def agriculture ah. ñëpp mënuñu def commerce mais nit ku nekk compétence yi nga am mm-hmm. ambition yi nga am ak domaine bi nga xam te moom la la suñu borom suturaale nga war ci ah. évoluer mm-hmm. da nga fay évoluer mais tey ñu ngi xeeb tey dañuy jël exemple benn jeune boo xamante ne day xëy di jaay di di di raxas di raxas oto. Mhm. ñu laaj ko naka yow ci raxas oto bi ñaata nga ci mën am. Mhm. mu ne man su ma xëyee au moins dinaa cinq cinq oto mën naa ko raxas. Mhm. oto oto oto cinq oto mën naa ko oto bu nekk su ma ko raxasee lu ci bëri dinaa ci am lu lu mat ay deux mille francs. dinaa ci am ay mille cinq cent. mais loolu su ma ko dajalee journée bi en plus damay jaayale suba gi suma ma xëyee damay dem jaayale mburu ah. mburu boobu noonu li ma ci am lii laa ci am mais boo xoolee jeune kooku. li muy gagné mais ça dépasse les trois cent mille francs mais demal ci bureau yi ñaata nit ñoo ci fayeku ñee ñoo ci fayeku loolu ah. donc loolu aussi bokk na ci li nga xamante ni tey yàq na marché du travail mooy taamu bi nga xamante ni ñun jeunes yi ñu koy taamu choix du travail voilà euh, suñu seetloo euh, comme euh, jamonoy corona bi comme li may wax rek peut-être ñàkk repère si la ndax euh, gisoon nañ ba entreprise yi tëjee bañ mhm. demee ba mënatuñ bokk mënatuñ nekk à cause du virus gisoon nañ benn femme bu ñu wane woon à la mhm. mu def si voiture am ay légumes. Mhm. mais di wër si koñ yi di ko jaay kon nga foog ni est-ce que comme ni nga ko waxee rek parce que acculturation dafa am aussi on a en quelque sorte du nos valeurs suñ sukkandi waatoon tuuti comme li nga wax. sama kër xaw na yaatu tuuti am na benn espace ma defa mhm. benn espace bu ndaw boo xamante ne xale bi mun naa ko fa jàngal bay wala mu tegal ko marchandise ne ko lii ak lii nii lañ koy defee loolu qu'est-ce que tu en penses ak yow selon toi nekk jeune nekk si mbirum entrepreneuriat et tout loolu si xalaat. Euh, bon man de dama dama dama dama yàgg jàppani mhm. donc face à la déperdition scolaire mhm. face peut-être au chômage bi nga xam te ne mooy le le monde mu nekk un fléau partout man je dama vous dire alternative bi entrepreneuriat man entrepreneuriat entrepreneuriat création d'entreprise. Euh, mais est-ce que c'est pour tout le monde aussi parce qu'on parle d'entrepreneuriat mais tout le monde ne peut pas entreprendre. entrepreneur. tout le monde ne peut pas être un entrepreneur. Mhm. c'est la vérité. Mhm. mais quand même buñu wax solution cela veut dire qu'il y a un problème le problème bi mooy comme que ñëpp liggéeyuñu ñëpp liggéeyuñu. Mhm. donc euh, là c'est la réalité. bureau bi ñu wax tey toute personne ñoom ñoo fay nekk. Ah. ñi nga fa mais solution mën na nekk ci entrepreneuriat. bu fekkee sa sa maanaam orientation bi euh, foofu la mais nga def ko bu réussir xayrun bu réussir nga recommencer waat parce que entrepreneur li tax ñu koy wax solution mhm. mooy maanaam tey da ngay xool réew nga xam te ne ñoom ñoo gën a développé mhm. réew nga gën a développé ci côté numérique la ci côté énergie la ci côté agriculture la mhm. donc mu nekk secteur yoo xamante ni aajuwul nga liggéey ci bureau pour def ko tey entrepreneuriat combien de dañuy faral di jël ay exemple des gens yoo xam ne ils ont réussi dans l' entrepreneuriat mhm. boo leen di wax ñu ne non non ce sont les mêmes exemples mais exemple nañ ñoom ils ont réussi pourquoi pas nous entrepreneur nga xëy suba teel ne man dama am objectif créer benn entreprise boo xamante ni mhm. day jaay day ci mbirum ndox mais nga wut ci information lii lay laaj ci côté xaalis te création d' ci bëri maanaam du xa du laaj xaalis bëri bëri à moins nga bëgg commencer par groupe. te nag loolu entrepreneur li ñuy jàngal mooy il faut commencer petit. pour aller am rek mën nga commencer ak moom mhm. effectivement. Mhm. donc jeunes yi ci li ñu leen di orienter mooy côté entrepreneuriat. ci côté entrepreneuriat nag bu ñu leen koy wax rek. du question dama am benn projet 10 millions dama bëgg non tu peux pas commencer par 10 millions. commencer petit petit à petit. Mhm. boo commencer petit petit à petit si ngay say évolution. nga ne tey mois un lii laa objectif mois deux lii année un lii laa atteindre objectif mhm. donc loolu moo lay permettre ngay dem ndànk-ndànk loolu nag soubassement bi mooy lan mhm. soubassement bi mooy da war a am patience da war a am persévérance donc jeunesse bi encore une fois day ñëwaat ci côté éducation mhm. maanaam ñun waruñu jàpp ni lu ñu dugg rek dafa war a réussir tey dañu war a jàpp ne maanaam ndànk-ndànk nañuy demee tepp tepp moo gën yu réet loolu moo ñuy permettre ëllëg bu ñu gañee dara non seulement dinañ xam njëriñ bi mais dinañ ko mën a aar ba permettre ñu ba ba mu mën a euh, euh, comment dirais-je euh, périn

effectivement ah, mhm. merci beaucoup pour la question Fatima. Mhm. man d'habitude bu ñu ma invité. Mhm. Euh, quelle que soit thématique bi ñuy bi ñuy bi ñuy développé. bu ñu bu ñu bu ñu ci li nga def rek dama parce que aussi yàlla dafa def ñu nekk ay jeunes. Ah donc issus des des communes. di taxaw suñuy communes nag ci anam yépp parce que nous nous sommes des des fils de de nos terroirs. raison mhm. pour laquelle si nous de nous comme coordonnateur technique pour emploi. Mhm. nous sommes ne mhm. parce que nous faisons comme def benn Nous sommes gën ñu responsabiliser jox les moyens et les outils. Pour emploi entrepreneuriat dafa avons dispositif du Sénégal mettre en place en avril 2021. Nous gérer li nga mooy bëgg-bëgg jeunes emploi manam mbirum xey mhm. formation mbirum tagat ak mbirum financement mbirum accompagnement mhm. donc loolu buñ ko taxawee nak mhm. le président de la république euh, def ay dispositifs yo xamné dans chaque département donc dans dans les quarante départements du pays amna na dispositif bu ñu woowee pôle emploi entrepreneuriat 3FPT euh, nek fa ANPEJ nek fa DER nek fa te ñooñu li leen taxaj jog ci comme li nga wax sank ndaw yi la ak jigéen yi je crois que ne développement tay mënoo ci génn ñaari patch yooyu non ndaw ñi ak jigéen yi ci côté dynamisme ci côté ci côté ci côté énergie mais ci côté également euh, farlu gi nga xamni ne farlu nañ tay pour du jëmale seen jëmale seen dëkk kanam jëmale seen mais est ce que jeunesse bi mi ngi siy yëngu bu baax effectivement jeunesse bi ñu ngi siy gis seen bu baax mhm. parce que dañuy faral di ko wax même offre yu bari lu ñuy def mhm. gars yi dañ naan trente ans la yem quarante ans la yem moo tax sax même euh, ñi nga xam te ni seen âge da ko dépassé. Mm-hmm. li ñuy tooñee mooy li euh, xëyu mag yi kañ lay am. parce que xëyu ndaw yi nañu wax. Mm-hmm. donc nag donc programme bi nag li ko tax a jóg mooy ndaw ñi ak femmes yi tey boo xoolee 3FPT. 3FPT mm-hmm. moom mooy accompagner les jeunes sur le financement de la formation professionnelle. maanaam jeunes yi nga xam te ne dañoo bëgg def formation. ñëpp xam ne tey la formation a un prix. Ah souvent day métti état mu ne créé naa benn fonds boo xam ne daf leen di accompagner bu leen bëggee. fay quatre euh, par exemple cent pour cent yi état fait 90 pour cent ah, te jeunes yu bëri bénéficié wu ci li nga xamante ne moom mooy loolu da nga wara fay ci ben école bo xam day coûter cher 1 mm-hmm. million la état fayal la 900000 yo nga fay 100000 donc lolu moy 3FPT. mais bon doguma la lima ma jaaxal par contre jeunes yi boo leen waxee ay 3FPT. comme mm-hmm. pôle emploi et tout dañ la nan xawmako ma ko mm-hmm. yëguma comment ça se fait. est-ce que yéen aussi yéen a ngi passé yenn publicité wala yéen a ngi jaar ci comme ni ngeen ko waxé département et tout pour gëna a ñaax ndaw ñi parce que choix du travail bi dafa am dañuy taamu. dañuy taamu liggéey bi carrément te compole pôle bi nek na fi pour orienter len mhm. wala pour jàppale len si liñ bëgg. Mhm. parce que si je comprends bien c'est ça nit ki mën na andi projet am ne la man kat lii ak li yéen da ngeen koy jàppale si loolu. est ce que aussi ki bi mi ngi daw normalement. bon ci loolu non aussi chaque fois dañuy dégg ay retour par rapport information bi ki mais. Mhm. liñ ñu mën a wax mooy. gis nga offre de demande de formation offre yi kan appel candidature mooy bu ñu de telle date du du premier au 15, dañoo war a demande de formation yi au niveau des pôles emploi. ñu dañuy liggéey ba 22 deux heures liggéey ak nit yu bëri nit dañuy fees tel on est obligé pour jël logistique ay chaise ay basse jënd ay ndox pour permettre jeunes yi mhm. am na jeunes yoo xam ne quatre heures du matin dañ fay ñëw hmm. wallahi azim donc en terme d'information moi je me dis que l'information passe mu ngi hmm. et en plus aussi beneen chose bi nga xam ne moom moo am mhm. dañuy utiliser les télévisions dañuy utiliser les plateformes pour emploi boo dem am na page Facebook et en plus aussi ñun ñu ngi dem au niveau des communes man benn commune rek bi ñu ma falee ba léegi. Mm. benn commune laa tayagul sama tànk au niveau département Rufisque. Mm. te xam naa bu ñu ko déggee dinañ ma rey. <laughs> ndax chaque jour maa ko mooy la commune de Sébikotane. à part la commune de Sébikotane tous les onze communes yi nga xam ñoo nekk département Rufisque. invité nañ ma dem fa dem naa fa def ay ay ay guichet mobile pour enrôler les gens sur place. dem naa fa pour euh, dérouler ay formation foofu. dem naa fa pour animer ay séminaire dem naa fa pour leneen ak leneen ak leneen donc ñun. on est très mobile sur côté boobu non autre chose aussi nous ne sommes pas devenus ex nihilo maanaam du ay jeunes yo xam dañoo tande jëlé fenen ñun ci département yi lañ dëkk. donc département yi am nañ fa connaissance bo xamante mm. information mu ngi jàlle légui nak lool non damay wax jeune aussi ñom ñu def effort xam nga tay c'est pas pour faire la publicité publicité sax. Mm-hmm. mais mais mais mais pari foot gars ñu koy gis. Mm-hmm. mais ban jeune mo lay wax na la awma information lu jëm ci côté. gain beeg non am nañ information yi. parce que am nañ page bi aimé nañ page bi xam nañ affaire donc jaral na leen je yi aussi loolu rek laa leen di wax. Mhm. que soit mu nekk pour emploi wala mu nekk yeneen dispositif si état yi def. na leen jaral parce que bu ñu demulee. Mhm. am na si yenn moroom yoo xam ne ñu ngi dem ñu ngi si gis seen bopp te ñu ngi avancé. parce que le service c'est pour eux. Mhm. donc loolu la maintenant information du doy. comme ni ñu ñëwee fii nii c' les gens vont suivre li nga xamante ne moom mooy émission bi. dinañ am information dinañ xam ni. département bi ñu dëkk. état teg na fa dispositif boo xamante formation emploi ak financement bu ñu si soxlay information. soxla ci orientation. soxla ci li nga xamante ne moom mooy encadrement mën nañ fa dem. Mhm. maintenant waxuñu ni nag ni ñëpp ñi fa dem am nañ euh, satisfaction par rapport ak la kii parce que nag mhm. on connaît la réalité mhm. le Sénégal est un pays en voie de développement c'est ah pas un pays développé souvent li nga xamante ne moom mooy demande bi moom mooy super à offre mais li am solo mooy boo fa demee mhm. même boo amul li nga xam ne moom nga soxla dañ la teg ci yoon bu la mën a permettre nga mën a aboutir ci li nga xamante ne moom da ngeen di jouer aussi le rôle de régulateur mooy tegaat si yoon bi rek mais suñu euh, si seen système yooyu noonu pour jeunes yi mën a xam comme euh, dañuy rester si thématique bi rek ndax démb ak tey la ñu wax est-ce que jarul aussi ngeen di dugg di wax ak parents yi parce que mm-hmm. peut ñoom am nañ poigne boo xamante ne bu ñu waxtaanee ak seen njaboot ne leen ah ñun kat démb nii ak nii lañ doon doxalee peut-être suñu maam yi nii lañ daan def ba suñ seen doom yi dañ leen di dégg dañuy bàyyi dañuy def nii ndax jamono yi xëy na looloo xewoon mm-hmm. est-ce que aussi du jar ñu delluwaat tuuti en arrière demaat defaat mii mag ñi daan def dem toog ak wax ak parents yi Expliquez les les choses pour moi aussi c'est une solution. non c'est une idée extraordinaire que vous posez. parce que au niveau du pôle emploi de Rufisque dañu une la rencontre d'affaires la journée des entrepreneurs. Mhm. maanaam que jeunes jeune entrepreneur bu nekk département ñu invité au niveau du pôle. Mhm. ñu waxtaanee manam euh, les possibilités d'emploi dans le département du fisc ñu waxtaan mais bu ñu si ba paré dossier bi nga xam mom moom nañ amoon mhm. mais daf ñoo jëriñ ni ndeké ñun suñu département amna ay en terme d' amna am fu lu bëri lo xamante tay ñun war nañ see mëna jëriñu et ni ko défé comme jeunes yi mhm. ren insha rabbi mhm. dinañ def le tout ba ñu défé ko comme parents Inviter invité leen seeti leen waxtaan ak ñom parce que ñom aussi xam nañ lo xamante tay demb ñun buñ ko jëriñoo rek tey suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu tey dina dina dina baax. mën na mën na yokk lu bari euh, mi mi mise à part ça parce que tamit euh, hmm. xëy na ñoom ni ñu ko waxee woon rek ni woon démb faciloon na wala peut-être jumtukaay yi mi ngi fi woon pour ñu pour pour ndaw yi mën a jub. Hmm. bu ñu waxee tey aussi le taux de chômage day augmenté. Hmm. te peut-être xale yi mën nañ def choix du travail mun nañ taamu man du ma liggéey lii lii laay liggéey mën nañ tayal wala mën nañ bëgg am mais si anam biñ koy amee est-ce n'est pas la faute de l'État aussi parce que tamit nit ki jang ba am ay diplôme mënul fexé ba am liggéey lo wax fi jeune bo wax dana la damay tukki mhm. mais li ngay tukki ga mën nga ko am fi mais mhm. comment l'obtenir c'est difficile aussi xam nga xam nga sank waxna mhm. possibilité yi nga xam tane DR 3FPT ANPEJ fonds PF2 sinon bëri nañ quoi. Mhm. bëri nañ li nga xamante tay ñom euh, ñoom ñu ngi koy ñu joxe. Mhm. mais maintenant très rapidement. Mhm. état bi amna sa responsabilité je suis d'accord parce que lepp li nga xamante état bi mom mom mom mu ngi koy def. du lo xamante tay matna voilà matul. état mënul réaliser lepp voilà donc dañuy ñun ñun li suñu wareef mooy lépp loo xam ne war nañ ko yokk. en tant que des représentants l' l'État ñu yokk ko mais nak l'état a fait beaucoup d'efforts pour la jeunesse. tey kuréel yi nga wax nii yëpp yii yëpp tey boo ci dem rek en terme de bilan mhm. en terme de résultat damay jël exemple DER bi DER bi waa département bi euh, am il y a de deux ans dañ doon kaas ne gisuñu DER bi mhm. mais après euh, l'autorité a demandé à ce que ñu defal ko rapport ñi am ci DER bi yëpp mhm. man yor naa ko mais ba ma ko gisee mais je me je me mais attends population bi ñoom ñoo am DER bi plus de deux millions de francs CFA mis dans donc ku ñu financé nga ne man financé wu ñu. financé loolu kenn mënu ci dara. noonu la demee léegi du ñu mais beneen chose bi aussi bi nga xam te moom moo am. Hmm. le chômage est un problème est une patate chaude entre les mains tous les États. tey bitim réew demal France <laughs> États-Unis foo mënti dem. am na problème mais quand même Sénégal bosam aussi. d' accord c' est la mais état mënul jox ñëpp liggéey ah. ça c'est la vérité. tey benn jeune boo xam ne damay tukki parce que aw ma liggéey. Mm-hmm. tey la faute n' incombe pas seulement à l'état. c'est à l'état de mettre ngi jël ñu ngi jël gaal mais mais ñu ngi dem mais tey mm-hmm. dama ne dama ne dama ne man mm-hmm. euh, immigration clandestine mm-hmm. amul lu ko mën a fii man dama bokk si ñuy jàpp ñoo xam ne amul lu ko mën a fii parce que am na loo xamante ni tey c'est un voyage suicidaire Tay, man ma toog sama dëkk mhm. jaayante ko mhm. quel que soit les possibilités yi nga xam ñoo nekk ñoo nekk si man même su may dem dafa ju commerce sax muy mhm. dëgër ma koy jaayante moo ma gëral may jël voyage boo xamante ne y a des y a des risques pour nga périr maintenant ñun dañu war a sensibiliser c'est vrai état am na responsabilité encore une fois war na dans le programme pour permettre tey migrants yooyu ak potentiel migrants yi pour pour gën renforcer capacité pour mën a def ko man damay lancer un appel à l'état du Sénégal pour loolu mu gën ko def mais damay lancer un appel également aux parents pression sociale sociale bi nekk ci kër yi métti na. métti na da ngay gis benn xale nga koy jàpp di ko tal sa mag am na lii sa diw am na lii sa kii am na lii. Hmm? loolu da ngay de jeunes si loolu lañ fay. voilà d'autre part hmm. foofu laay hmm. jeexalee. mooy entre c'est entreprise bien organisée boo xam te ne moom moo nekk ci ginnaaw jeunes yooyu noonu dem. mais 500 francs benn gaal bu def plus de 100 personnes 500 000 francs 300 000 francs chaque gaal. mais xaalis boobu nañu Euh, dispositif sécuritaire pour mën art aar ñi nga xam te ne jeune mais encore une fois damay faral di de wax chaque fois ça une ñu jëlee émission mhm. jeune bu nekk dafa war a yeewu chaque fois motivation mhm. problème faible la am mhm. tous les grands hommes qui ont réussi sont passés par des problèmes cruciaux mais ñaari chose ñoo am da nga war a nërmeelu daanu ne man dara amu fi dama war a dem tout ji dama war a dem euh, mettre sa vie en péril wara a da nga relever wu face face et je crois que dernière kii bi choix bi. Mm-hmm. mooy mooy choix bi nga xam ne moom la seen war a war a war a def. d' accord d' accord euh, waxtaan bi neex na trop xam naa ñi ngi jege fin wu émission bi comme ni ngeen ko déggee rek euh, ñu doon waxtaanee li ñuy wax euh, choix du travail ñu doon waxtaan waxtaanee évolution wu jeunesse bi face au travail parce que gis nañ ni ndaw ñi li ñuy taamoo liggéey jamono ji metti na trop metti na ku ci mel ni man boo ko waxee kaay def li mu ne la noonu parce que jànguma lii duma ko def fii laa préféré dem alors que préférence boobu mën na jur problème te gisoon nañ ni mag ñi amuñu woon problème boobu ah, telle sorte que ñoom buñ jógee balaa sax ñuy jug ñoom ñoo jug dem bay baa ñu gérer kër gi baa ñu da ngay gis taaw bi ci boppam dina def de telle sorte que pour ñu am lu ñu dundee du doon problème mais là euh, maintenant vingt et unième siècle bi ñu nekk lépp loo fi gis rek muy liggéey ak lu mu mën ci doon ci problème lañ ne comme ni ko Cheikh waxee waxee rek am nañ juncukaay yoo xamante ne vraiment jeunes yi war nañ ci mën a sukkandiku pour mën a avancer parce que liggéey aussi quoi qu'on puisse dire da ngay tëdd fi nga tëdd rek nga ni da koy am dem nga moom nga wax ak nit ñi yóbbu si li état bi teg wala si dispositif yi ñu teg pour jeunesse bi ak pour famille bien sûr nga nga nga fexe noo ko amee mais euh, toujours le problème qui se pose rek mooy encore choix bi taamu bi dafa metti taamu bi dafa bëri surtout ñu nekk si jamono joo xamante c'est dur pour tout le monde comme ni ko Cheikh waxee rek jeune moom saay boo yeewu rek war nga mën a am motivation ndax motivation boobu moo lay permettre euh, nga nga nga mën a avancer nga mën persévérer et endurer aussi ah, xanaa Cheikh euh, ñu bàyyi la rek nga jéem a tàggatoo jéem a joxe sa dernier mot rek. bon sama dernier mot c'est des mots de de remerciement. donc maa mhm. ngi lay sant bu baax a baax ci invitation bi. voilà mhm. eh, c'est un plaisir pour moi eh. mhm. ma ñëw fii ci Kër Moussa Info. donc maa ngi gis liggéey bu rafet bi nga xam ne moom ngay def maa ngi lay féliciter di la encourager. di féliciter également votre directeur. donc di leen di wax ni euh, c'est un très bon projet bu ñuy suivre donc de très de très près. donc euh, di wax ni aussi maa ngi lay encourager bu baax a baax. parce que euh, maa la koy wax. ça fait quelques jours liggéey ju ma def ma dara. mais bu ma yam dama naan damay bàyyi parce que sama nit nga du du du du tey euh, profiter également également di mm-hmm. di di di waxaat rek encore une fois aux mm-hmm. jeunes mm-hmm. de leur dire que de se battre voilà nañu choisir se se battre quoi donc insha allahu rabi lépp lépp dina baax di nuyu peut être ñi nga xamante ñu may seetaan di nuyu également le préfet du département de Rufisque Mm-hmm. parce que aussi moom c' est c' est c' c' mooy sama kilifa au niveau départemental. Mm-hmm. di remercier sama sama collègue yëpp di leen jox peut être rendez vous inshallah benen beneen yoon. macha allah ñu lay wax aussi sañ bi rafet na. ah merci beaucoup macha allah gis nañ beer bi. <laughs> alors suñu mbokk téléspectateurs tay li lañ leen indi won yaakaar ni ah di ngeen ci jëriñu ñun aussi comme ci si jëriñuwee question yi ñu doon euh, xeyna na ma suñu bop yu bari amana jëm nañ ko tek ci table bi ngir am réponse yo xamanteni suba su subaa dinañ si mën a pour mëna comme li ma wax rek di mëna percer réverbéré parce que ja toll nañ jamono joo xamante ni vraiment ñëpp soxla liggéey ñëpp soxla am ku nekk bëgg nga teral yaay bëgg nga teral papa bëgg nga liggéeyal pour sa bopp ndax soxla yi bëri na lool xanaa rek ñu joxantewaat waat dig daje crédit prochain ci beneen thème ñu indiwaat ko sur la table ànd waxtaan ak yéen ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kontaan vraiment ci suivre bi ngeen ñuy suivre fii ci Kër Massar Info mu nekk télé bi ànd ak yéen télé bi bi ànd ak yéen ci jamono surtout allez jërë ngeen jëf nekk leen ci jàmm bu bëri